soxna jaara moo di dey ba mi desi di a teeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew waayi te waayi nga te forox nga te foo nga jelu ma bida sellal yowa yàlla jox barke soxna jaara bu defan sukka cuune duñu wan ki ñuulu dolle def ko ñu cim nen soxna jaara la masula julli te jàppul masula julli te kay sangam tuubal daal wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxnante njaayi mbokkam saalan so maaram loola waral sëriñ gaawaan sëriñ gaawaan rekki jaamam jaam say la jaam baatil bambal kami kaadam cog ngeegola jébbal kaalanta dem rootil donga yi xëy toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daa rootal seen jeneer ba moo niital sawru faal sawru faal moo jëfal ba muy leeral moo taxi dëndam yaa nguy jib si jëf jël bamba mooy néeg ba Cheikh Ibra di lamp bay leeral ab la jéemay Maamoor Jaara Maamoor Jaara am la diya may maam Mor Jaara yéen a jaay Bamba yéen a moo pëg pay jëf moo waral maam Bamba ab jullit la muy jëf yéen a waral kër ak buuram yéefalil la muy jëf yéen a waral kër ak dooram moo tax ab jullit war nay jëf te boole koog yéen a loola mooy njërma dee leen jëf te boole koog yéen a muy doog ak karaam ni soo kaay leenam kooku la daana taxul musul weenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan sa kaw ak leer ya moo taxul musul weenam lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu ranke ngeniil ndax ngoola mu di ala saamaan muy wool ay jabar ak naa jooju doom demaa waar tànk doom demal banu fi soxna saadu ak waar soxna jaara yoom nga te yaa gore maam soxna ba maam ji yor borom ngeen li te fii jafe na cib jaam masala dox di waxtaani soxna jaara masala dox di waxtaani masa jóg di seetaan masa wax ba ñettaani moo taraxal saytaani masa dox raw sax day leen ta jig maasam teel a baa di waxtaanam lool moo di fan xaasam soxna jaara moo bën géej